yal na yàlla beesal seen yërmande mboolem suñu mbokk yi nu bokk la nekk fii ci barab bii di ko dundal ñu jiitu jinu yal na yàlla yërëm leen ci barke tawasul bu màgg bii suñu kilifa yi nga xam ni jiitu nañu ñoom ñépp yal na yàlla jéggal leen ci barke tawasul bii fa tabarakallahu wolof moo wax ni bu lëg lekkee aloom na ko gërëme coy waaye ñu itam nag fa tabarakallahu euh, bu ñu jotee ci euh, ndab lii nuy naane fa tabarakallahu ñu sante ko Seydil Haaji Malick moom mi roote ci ndabu Cheikhna Ahmad Tidiane Cherif mu roote ci ndabul Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa fa tabarakallahu kon ni ñu ko daan baaxoo di ko defe rek ci néegu yàlla la nekk néegu yàlla nag bu fa jaami yàlla toogee war nañu bàyyi xel néeg ba su ko defee kon kenn ku nekk na jaayoonteeg yàlla rekk ci la ko yàlla wërsëgal mu bari lool walla mu néew lool génne ko rek def ko ngir yàlla def ko ci néegu yàlla bi kon naam ko taxaw rek wala ñaar ñu taxaw laajal jàkka ji ndax wax dëgg yàlla bu nu mënee toog nii di tudd yàlla di jéggulu yàlla di fàttaliku mbindu mag ñi yàlla ak barab bi moo tax kon li nga xam ni mooy euh, jëmmal barab bi euh, ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax maa ngi ñaan yàlla ci barke suñ babacar si ku ci def sa dërëm nu mu tuuti tuuti yàlla na nga ko joxe waat déwan ci heure bii yàlla bu fi kenn manqué ci diggante bi na ci ku nekk dugal bu kenn xeeb waaw bu kenn xeeb bu kenn yéem wa tabaarakallaahu euh, su ko defee kon euh, ni ñu ko daan defee rek xam naa ban heure moo jot neuf heures na defe naa neuf heures la war na jeexal waaye ñu euh, ñaanaat leen rek ñu dolliwaat ci trente minutes ñu ngi nuyu suñu mbokkum bopp imaam Abdou Saman Mbay al ustaas di jàngalekat fa tabarakallahu fële ca euh, soppey xaadim di fa def liggéey bu rëy fa tabarakallahu euh, du wax ni gan la ci barab bi ndax barab bi miin na ko fa tabarakallahu euh, bu fekkee ni jiitewul fële jumaa rek li ci ëpp fii la koy jullee te lu fi xew rek ñu gis ko fa tabarakallahu kon al oustaz ñu ngi lay euh, dalal jàmm ci sa barab ci kanamu njabootu Seydil Hadji Malick njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa waaw guddi yonanti bi moom wax dëgg yàlla loo ci def rek yayoon na lu ko ëpp waaw moo tollu noonu waaw su ko defee kon euh, bala ñuy continuer li ñu war a wax maanaa ñu bàyyi xel gàmmu gi kenn ko xam ne joxe goo woon sa cotisation nga génne ko joxe ko ndax mooy doxal gàmmu gi nag te guddi yonent bi la lu ci waay def rek euh, sa bopp nga ko defal fa tabaarakallaahu yaayoonu la loolu ndax li nga am lépp yàlla nga la ko may ci barkeem kon nag bu juddoom ñëwee di guddi gi nga xam ni ci la gane woon àdduna euh, ñu bàyyi ko xel bu baax a baax su ko defee kon loolu moo doon kàddu yi euh, mbay doon da bala ngeen a yëkkati damay jox rek imaam Abdou Samad Mbay mu nuyoo ak mbooloo mi nuyoo ak njaboot gi nuyyoo ak ay soppeem nuyyoo ak njabootu Seydil Hadji Malick njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax tey njaboot gi fi teew yépp njabootu Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam waaw su ko defee kon nii rek la di leen sant nag bu baax a baax wax dëgg yàlla ni ma gis ngeen taxawoo ko xadara bi ren ci burdu bi euh, gëñ naa ko gis wax dëgg yàlla rawatina nag ndaw ñi waaw rawatina ndaw ñi waaw ndaw ñi am nañu itte lool ci burdu bi ren yal na ko yàlla jëme kanam waaw lii day dalal xelu mag ñi ndax xam nañu ni mag ñi jeexal nañu yéen lañuy gunge rek mbir mi yéen a ko moom kon nak mel na ni yenu ngeen ko bo nopi yal na yàlla nyal len, yal na yàlla barkeel len, ci barke suñu mag ñu bax ñi kon al oustaz abdou samad ñu jox la kàddu gi nga sann ci ay kàddu rek lum tuttu ci baxna ñu barkel ko ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam euh, bismillah وبصاحبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين بقي نجلين دنيو كان نكونك كيسا تور أك كيسا سانت نجلينيو جبوت الإسلام جيب كيب كو خمني يعني أشهد أن لا إله إلا الله mm. ak fo man di nek ci kaw suuf ñi ngi lay wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waye di jotali ñépp comme ni nga xamé ne non la ko sallallahu alayhi wa sallam waxé won ci hadith ci ay sahabaam ne len ñi nga xamné ñoy ñëw sama ginaaw na ngeen len di jotali sama nuyo kon ci barkep سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبارك كيغا خامني موي سيد الكونين والثقلين نيغا واخ جولي نيب نيو بوبيغا خامني يونت بي صلى الله عليه وسلم مو ني سانتون ني نانكاي سيوال سيني ديغانتي موي جام موي سلام الله على المسلمين جميعا كونتان نين لول دولي تي لاغا خامني موم لا ندون كونتان waaye ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala doonte son santuñu ca na nga xam ne noonu lañ war a sante waaye ñoo ngi koy ñaan ni nga xamee na noonu la bëggee ñu ko nii sante yàlla nañu taw féexale ñu man ko ba nangu koo def te bu ñu ko defee yàlla nañu ko nangul te bu ñu ko nangulee barke ba ak yiwwa ak tuyaaba ja yàlla na ko tasaare ci julli ñépp ñoo ngi ñaan ci barke weer wi ci barke bis bi yàlla na yàlla def jàmm ci senegaal yàlla def ko ci réew julli ñépp yàlla nañu yàlla musal ci jàngoro jikko yi yàlla musal ñu ci jàngoroy xol yi yàlla musal ñu ci jàngoroy xel yi yàlla nañu yàlla def ñu bëggante soppante bokk ndey ak baay yàlla nañu yàlla musal ci jàngoro yi nga xam ne moo xew léegi kenn yéeneetul sa moroom jàmm ci àdduna waaye ñàkk yéene gi dem na ba dafa mel sax amna lenn ño xamne day mel yene wuñ sax ñeneen ñi dugg aljana te mbokk yi aljana la yaatu la lool bu xat do don am safara moy xat ndax mom la yàlla ne day fess waaw bo duggé sa morom dugg yow lum lay wañal dara dula wañal dara te kenn ku nek fa ngay nek ëlëk ci aljana do soxlaal sa morom dara te borom bi subhanahu wa taala neena na wa lahum fiha min kulli thamarat ولكم فيها ما تشتهيه الانفس anfus خاص دغ لب لو خامني بغ xam كو رك دا نكو ام مانام nga بيغا خامني موم actualité bi nga xam ne moom lañ toll tey muy gàmm am na ñoo xam ne tomb bi nga xamne ku fi tew fekke li dana am lo xamne yàlla dugal nako sab xol dana am lo yek bu fekke deug deug ab jullit nga dana am lo xamne ne ne ab énergie bo xamne tay duguna la ko loolu nag yàlla mi ngi ko jagleel boroom xol yi nga xam ne yàlla dafa seetal seeni xol fii ci àdduna nga xam ne ñoom faatooguñ waaye dugg nañu àjjana li tax ñu dugg àjjana mooy seeni xol fi ñu toll rek ñoom dañuy day fees ak bànneex ngir na ñëpp seeni xol moo set seeni xol moo sell actualité bi nga xam ne mooy gàmm am na si ñoo xam ne tey fu ñu mën di nekk ñu ngi bind lu ne di wax lu ne maanaam ku toog di tagg sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko jëmmi tagg gi muy tagg muhammad sallallahu alayhi wasallam wala jëmmi fàttaliku gi muy fàttaliku muhammad sallallahu alayhi wasallam day dem safara ca loolee dafa am loo xam ne maanaam xel nanguwu ko sax waaw bu fekkee ne yàlla ñun ay jaamam lañ ñeneen di ay jaamam ñu bëgg sallallahu alayhi wasallam sallam di ko fàttaliku di ko tagg ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne moom la diggee ci tagg ko lépp ñi di ko tagg nga bëgg a jël ñoo ñëpp ne ay niti safara lañ wala iyaazu billah moo tax yenn tegtal yi sax jërul di wuti lay defe naa ne kuy ab sénégalais bu yàlla xéewalee nga nangoo gam war ngaa yam ci kenn ci ñaar ñii muy alxaaji malik radhiyallahu anhu wala al khadim radhiyallahu anhu war na laa doy sëkk nga ne ñoom dañ daan gàmm damay gàmm jërul ngay soxla leen soxlawoo wo soxlawoo xadis wo dara ñoom dañ ko doon def dama koy def ndax ñooñu dañoo nekk ci exemple leer yi nga xam ne ñoo gën a leer ci Sénégal ci xam-xam bu sell ak yiw bu sell ak jàmbaare ci diine ba noppi lañu ñu nekkoon mu wóor na la yoonu àjjana ñu yéene ko ñëpp yéene ko jullit ñëpp boo xoolee sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu mi ngi wax naan fala tuaadu man raaytum fa yuxriju laa ilaaha illallah képp koo xam ne seen da ngeen koy wax gis muy wax laa ilaaha illallah seen mbokk la bu leen ko jàppeem noonu boo gisee ci ay ñaanam mi ngi wax fa innahum wa in asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad fa inna abdanahum la taqdiru ala balaika li doxfin yasar nga xam ne da ngay gis ne saa bu nekk ñoom dañoo ñoom bu fekkoon ne caabi na yi dañ koo teg seeni loxo dañ koy teg dañ koy teg dañ koo teg seeni loxo mu leer leen naññ mu wóor na la ëllëg ñooy ubbi nit ñi àjjana ñu dugg bu leen maanaam buñ nee jaamu leen rek dañuy bañ nit ñi fo waaye ñëppay dugg àjjana. Mm-hmm. ñëppay dugg àjjana jëlale naa ci ab sénégalais dong wala ab africain dong waaye ñëpp la ñuy dugal na parce que seen xol mate na ko seen yërmaane mate na ko. kon na anañu te ñooñu moonte ay jaami borom bi lañ yoo xam ne yàlla moo leen baaxee yëkkati leen ñu ñu ñu ñu ñu xottee ci yërmaande borom bi subhaanahu wa taala ba seen lépp di yërmaande kon ana yàlla mi nga xam ne kon nee na moom mooy yër jëmmi yërmaande ci boppam ci moom lay bawoo kon lii war naa tax jamono ji ñu toll ñuy jàngat jikko yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam Seydina Muhammad jikko la bu fekkoon ne dañ koy melal ci benn melokaan dañ naan mooy jikko jikko la jikko jooj yi mu doon nag mooy bépp jikko boo xam ne bu rafet la comme ni mu ko waxee innama bu'ithtu li utammima makaarima al axlaaq dañ maa yónni ngir gën gaa tedd yi jikkoom bu fekkoon ne jikko dafa nekk loo xam ne dañ koy teg di ko misaal ci ab montagne dañ naan njobbaxtan la mooy seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam lépp jikkoom la te nee nañ jikkooy yónnante bi sallallahu alayhi aw xeetam yépp la ko tàmbalee ca xadiija ma njëkk a jébbalu di soxna ak ña ca topp di ay soxna wala di ay góor ba ci kiy njëkk a gëm wooteeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu jëloon jikkoy yonante bi sallallahu alayhi di leen ko séddale di leen ko séddale ba ñoom ñëpp jël bu ñu jëlee la am jël Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ci jëmm ci jikkoom jikkoy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam watt aw xeetam yépp kon moo tax ñu ne amul kenn koo xam ne day mën matale jikkoy yonante bi sallallahu alayhi wa waaye dañuy ëppante nag maanaam dañuy jël lenn net ci jikkoy yonante bi jox ñii séddale ko aw xeet wala séddale ko aw askan xeet woowu nag du xeet woo xam ne xeetu deret lay doon mën nañoo nekk fu nekk ci àdduna bi ñii mën nañoo weex ñii ñuul ñii mel neneen neneen kon ñooñu di aw xeet woo xam ne rawxaan ya lay doon ñu jël beneen jikko séddale ko ñu ne mooy tax si jullit ñi da ngay gis ñoo xam ne dañoo baax lool mën nañoo jaamu yàlla waaye yàlla da leen di nattoo du ñu tabe torop farata rek la ñuy def bàyyi du ñu tabe torop waaye da ngay gis ñoo xam ne dañoo bax lol man jaamu yàlla ginaaw jaamu yàlla waye li len gën a naqari ci aduna bi moy nit ku am soxla te waxu len ko nga gis ño xamne sen dund gep dañ ko sacrifier manam jox ko doomu adamay kon ñu uppante ci ay daraja te lol lépp ben bo si jël ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam da ngay gis ne kep ko koy tëkkaleel ci walu gog yonante bi sallallahu alayhi wasallam da koy fouf da koy romb fop kon yonante bi man na di bàyyi xel bu baakha baax maanaam bi ñu si njëkk a tàmbalee mooy nañ jël laayab alxuraan bi nga xam ne bu fekkoon ne dañuy identifier kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañ si tàmbali rek yam si bismillahi rahmaani rahim wa innaka la ala xuluqin azim borom bi subhaanahu wa taala nee na ko yow bu dee jikko moom la ñuy nattee doomu aadama la ca gën a mat yow ca nga taxaw وإنك لعلى خلق عظيم كون لولو بون جيلي تي وإنك لعلى خلق عظيم لب لو خامني داي تخ بروم بي سوب اب جامام يونت بي صلى الله عليه وسلم داف ساي فيس ديل واي لب لو خامني داي تخ ملائكه ييغا خامني ньо نيك تي كاو دي فونك جام يي موم داي داي دا ساي دا ساي مات سك واي لب لو خامني داي تخ ñinga xamne ñoy jinne yi wala doomu adamay sopp seen morom mbindef yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daf say mat daf say mat sëkk moo tax ëllëg bu nit ñi di dugg yow bu ëllëg yowmal xiyaam bu nit ñi di dugg àjjana nee nañ balaa kenn dugg àjjana yonente bi salaa sallam mooy ñëw joxe ndigal ñu ubbi bunt bi bu boobaa malaaka mi dana ko wax ne ko yàlla dane ma woon bala ngaa ubbil kenn naa xaar ba ba saw tur dikk te mooy muhammad salaa sallam te mooy muhammad mi fay njëkk a jaar moo tax bis moom yonente bi salaa sallam dafa génn fekk lenn nekk ci ay saxaabaam di waxtaan kenn ku nekk di wax mbaaxug len net ci ay yonente kenn ku nekk ma ngay melal kenn ca namu maanaam xool kan moo gën a jege yàlla daan ne am kenn ci ñoom ne aadamu day moom mooy ki nga xam ne moom la yàlla njëkk a wàccee ci kaw suuf njëkk ko defub yonente def ko mu nekk xalifaam ci kaw suuf am kenn net ci ñoom ne Moussa de mooy kalimullah am kenn net ci ñoom ne Ibrahima day mooy xalilullah am ken net ci ñom ku ne musa day moy kalimatullah wala moy ruhullah non lañ ko topé yonnte bi sallallahu alayhi wasallam da di génn daan ne ah dégg na len seen waxtaan wi neex na te am solo dégg na len ngeen wax nangam ak nangam ak nangam waye day lima len di wax moy man may habibullah wa rasuli wala faxr man maay soppeeb yàlla bi di ab yonnte bi muy mujj yónni te loolu dama si puukarewu daan ne ëllëg yowmal khiyam man may ki nga xamne man la yàlla di njëkk dekkil te duma ko puukare woo ëllëg yowmal xiyaam maay ram mu xeet yépp te duma ko puukare woo ëllëg yowmal xiyaam bu ñuy ubbi àjjana maay taxaw te duma ko puukare woo ëllëg yowmal xiyaam ñi ngeen di tudd ñépp seeni xeet dana ñëw ci ñoom ñiy daw ba ñu dikk ci man ma doog a wallu te duma ko puukare woo ëllëg yowmal xiyaam kenn duma fa ëppale li muy ramm sama xeet ñooy ëppale li ñuy ramm ba ñi gën a ñàkk maanaam euh, aw yiw ci xeetam sax dañuy waté te loolu lépp man la ko yàlla jagleel te duma ko puukare wa sallallahu alayhi wa sallam moom nag Seydina Muhammad dafa waxoon ci xadisam ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi maanaam ci wàllu yar dane man day sama borom moo ma yar waaye yar bi ma yar daf koo rafetal ba mu rafet lool moo tax boo xoolee aw xeetam ñi nga xam ne dañoo kawe ci ay jikko wala ñu nekk ñoo xam ne ay làmp lañuy leeral da ngay gis ne seen lépp ñoo koy gën a jekkale ñépp ñeneen ndax dañ koy dond nuru ko ci yar nuru ko ci lépp kon sallallahu alayhi wa sallam ab yaram moo taxoon euh, nee nañu suñ ko masaan joxu ñam ñam wi bu fekkee ne lu mu sopp la maanaam lu mu xemmem la da jëfandikoo sant waaye bu fekkee ne nekk na loo xam ne du loo xam ne lu mu tàmm jëfandikoo la daf say mos daal di sant suñ ko masaanu jox yére misaal maanaam euh, yére boo xam ne dafa rafet lool nga xamne duko sol bokul ci ak colom daf koy jël julli ci ñaari rakka ba nopi lemat ko bam jek dal di ñaanal ko ko jox ne ko bo amé leneen nga jox mako waye li dafa rafet lol sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana motax borom bi subhanahu wa taala ne yéen day xeet ci yonent bi la len tanal mu nek ko xamne mom ci ngeen di roy kep ko xamne ab jullit la dafa wara roy ci xetu dafa képp koo xam ne dafa nekk ab jullit bokk ci xeet Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ki mu war a roy rek mooy ab yónnanteem amul dara nag loo xam ne moom la ab jaam di yor di ab jullit ba loolee mu jël ko teg ko digganteem ak yónnante bi sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim moo tax Serigne Touba di wax ci jazbul qulub te jazbu mooy téere bi nga xam ne moom la bind di ci wax li nga xam ne mooy jaar-jaar yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax wa akmalul wara nee na moom day yonante bi mooy ki gën a mat ci mbindeef yépp xam nga buñ ne yonante bi gën ji mbindeef du gën ji nit waaye day gën ji lépp loo xam ne lu yàlla bind la moo xam nit la wala nekkul nit jinne yéeg malaaka yeeg mala yeeg nit ñi ñépp ci lañ bokk lépp loo xam ne jël nga ko rek buñ ko comparé ak yonante bi sallallahu alayhi yonante bi da fekk ne maanaam léppam moo gën lépp lépp loole gis nañ lenn ci nit ñu mujj ñi nga xam ne dañuy ayibal gàmm gis nañ ci borom xam-xam bu mag a mag bu toog naan Muhammad bokk na ci ñi gën a tedd ci mbindeefi yàlla yi loolu dafa maam ab julli sax da ko warul sa wax te boo ko boo ko xoolee nee na ñoo gàmm maanaam loolu kon dafa am loo xam ne dañ koy def waaye politique la politique bi mooy dañoo bëgg nit ñi bàyyi gàmm ñu soppaloo ñu leneen soppaloo ñu keneen toppaloo ñu keneen ndax nit ñi لا دمنا نك مك السنغال لا يأوي تحت ظل محمد ويعبد ربا جل شأنه موحدا فمن ظن غير هذه فظنه سقيم باطل لن يؤيدا رويدكم أهل الكنيسة لن تروا مدى الدهر أننا قد تركنا محمدا يالنا نيكو يالا فاي شيخ إبراهيم نيسباي موكو تون تون بريزيدان سنغور كون نين سيني خول محمد بو ندنان كوم نيكو ولف دي وخي نانغام دينا كي دنان دينا كي بو te dara du ko si jëlee kon loolu dafa am ay organisation la yoo xam ne buñ génnee fexe ba génne xolu maanaam si luñ mën rek ba xeex jullit bi tàmbalee ko ci ak juddoom ba néewal doole ci pas-pasam ni mu war a toppee sallallahu alayhi wasallam ngir ñoom jàpp ne am na loo xam ne moom lañ bëgg a installé ci xolub jullit bi te ñi nga xam ne ñooy def loolu programme yu yàgg la ñu yor yàkkamtiwuñ ci li ñuy def xam nga ne koo xam ne ab boroom xam-xam la di imaam toog ne Muhammad bokk na si ñi gën a tedd ci li yàlla bi ne loolu mooy waxi lan ana kan lañ koy tëkkaleel ba naan bokk na ci ñi gën a tedd Muhammad sallallahu alayhi wasallam lépp lu dul yàlla moo la gën mu jeex tàkk waaw lépp lu dul yàlla moo la gën mu jeex tàkk Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon wa huwa akmalul wara xalqan wa xuluqan zahara waaye taaru taaru bindam taaru bindam amul dara luñ koy tëkkaleel bu dee ci góor ñi bu dee ci jigéen ñi lépp loo xam ne lu yàlla bind la rotal ko ci kaw suuf muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo la moo moo la gën a rafet jikko moo maanaam moo la gën a rafetu bind ndax taarub yusuf dafa amoon fitna te taaru muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul fitna muhammad lan mooy lan moo nekkoon attraction am mooy jikkoom jikkoom lañ ko doon soppee te yàlla daf koo defar mu rafet lool waaye daf koo amoon xëy ba boo xam ne kenn du ko gis di nangoo xalaat lenn ci moom di xalaat lenn ci mom sallallahu alayhi wasallam motax yàlla daf ko muccel mussel ko te yusuf taram bobu moo taxoon maanaam ka nga xamne moy zulaykha don ko jema sàkku ngir dafa am tar bo xamne lam la yàlla defal yónnante bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamne moy tax jigen ñi danañ ko meuna wek muy xëy ba boobu daf sa néewal doole sayidina Yusuf ba daraja bi nga xamne mom la ci sayidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam am sayidina Yusuf amuko kon dafa melna na Yusuf ñing ko daggee ci li nga xam ne mooy taarub Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax Serigne Touba ne xalqan wa xuluqan zahara waaye tamit jikko jikko tamit léppam moo ko gën la ñëpp jikkoom dafa rafet bu ñu demee ba ci biir danañ si joxe ay exemple yu baree bari ndax mënoo koo jël ci benn mbir ndax jikko li mu ëmb dafa dafa dafa bari maanaam ab yar dana ci dugg ci genn wàll waaye tabe dana ci dugg dëddu àdduna dana ci dugg baax mën a baale dana ci dugg bari yërmaane dana ci dugg ni ngay jëflanteeg sa waa kër dana ci dugg ni ngay jëflanteeg public bi dana ci dugg boo taxawee di àttekat jikko dana ci dugg boo taxawee di président jikko dana ci dugg te yonte bi sa alayhi wasallam yooyu yëpp la woon wal mislu xattu la yura moo tax ku mel na sallallahu alayhi wasallam amut kenn mësee su koo gis fenn kenn mësee su koo gis fenn تكن دوكو غيس فن بن لا جيخنا لم يبدو مثل المصطفى محمدي سرا وجهرا في البرايا سمدي مانام يالا داف كو بيند بيم كو بيندي با نوبي خليما گم كو بيندي وون مون دونغ لا تي بيند دام نا خليما گا جيخنا صلى الله عليه وسلم كون يي نا گا خامن موم لا نيوخ ا 5 كون يي نا خامن موم لا نيوخ يوي نا اي مبير لا يو خامن مانيسو سي روي sallallahu alayhi wa sallam ndax kenn mënu koo wutal sa bopp yàlla moo ko moo ko ko tànn rek moom la neex buñ demee tamit ci wàllu askanam askan wi mu am ni mu teeyee ni mu sellee ni mu baaxee loolu moom rek la ko yàlla defal sallallahu alayhi wa sallam kon buñ demee ci wàllu teggin dañuy wax ne ay ay comme ni niñ ko waxee ci xadis bi rek addabani rabbi ki nga xam ne kenn yoru la waaye yàlla moo la téye yar nim la téye yar mooy daf laa yar ci wàllu loo xam ne wax yu la ndax yonent bi sallallahu alayhi ku nekk xam nañ ne daan nañ ko corriger ci ay mbir ci wàllum nite waaye tamit bi muy nekk xale yàlla daf koo waajal daa di xotti xol bi daa di cay génne ba noppi tàbbal ca da caa génne lépp loo xam ne ayib la ju war a mën a faagaagal doomu aadama ci wàllu jikko waaye ba noppi duy ca ba mu fees dell ba noppi bàyyi ko jaarale ko fi muy jaarale doomu aadama yépp muy sàmm di jaay di jënd di jëflanteeg nit ñi waaye moom yonent bi sallallahu ci ay jikkoom yu rafet njëkk ñu koy woote wala kenn di ko gëm wala kenn di ko weddi ñu seedeel ko ci jikko yu rafet yooye ca Makka te boobu iqra wàccagul ñu tuddee ko al amin am na benn bis boo xam ne waa Makka dañoo naroon a xeex fukki giir ak ñaar ngir ne dañoo defaraat kaaba gi ba noppi di xëccoo ana kan tek al hajarul aswad bi nga xamé né ña ngay xex ña nga nara xex ba kenn ku nekk waaj ngir ne suba kenn ku nekk mom da nga am li nga xamné moy honorité tek hajarul aswad kenn ku nekk jaral na la sa bakkanu morom rot am goor gu bari xekk ma gu fa nekk ne len su suba nañ wëru ci yalla ñu xaar ku jëm ci penchu mi ñu sakku ci mom mu biñu xeyé ñom ñépp ñu ñëw taxaw da seeni jaasi fas yene xex wala am ku len até biñu gisé am kuy ñëw ñu xol ko bu baax muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñépp ñu andano ne radayna bihi hakaman gërëm nañ ko mu até ñu ndax ki li ñu xam ci moom ndax bo fekke na kon légui tuddé nañ ko fofu al al hakim tuddé nañ ko fofu al hakim waye jitu won nañ tuddé ko al amin ndax mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam boko masona dénk khalis ci jamono bobé ci misal bu fekkone tay dang ko dénk ñaar fukki dollar yi nga jël numéro bi nga xamné moy identification khalis bi nga noté ko fenn denc nga tok juróomi at dikkat ne ko dénkoon na la 20 dollars bo dikke bu la delo 20 dollars nga xoolaat notification bi da ngay gis ne même numéro bi nga ko dénkoon sallallahu alayhi wasallam motax moo ñu tuddee ko al amin ñun ñëpp suñu jup moy vingt dollars nga ma dénkoon vingt dollars a ngi nii man de ku ma dénkoon vingt dollars vingt dollars rek laa lay jox waaw <laughs> sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jazakumullah xeyran wa barakallah fiikum kon ci wàllu yar moom ay waxam daf daan wax wax joo xam ne wax ju leer lay doon lim daan wax it daf koy baamu te dafa bari woon maanaam da daan ànd ak nit ñi bu ñu bu ñu bu ñu triste day triste ànd ak ñoom waaye bu ñu kontaanee day kontaan ànd ak ñoom te dafa respecté woon ay saxaabaam ba du toog toogin boo xam ne toogin bu wuuteeg ñoom ni ñuy toogee la daan na toog ci mbooloo kenn di ko laaj te jóge dëkk bu sori jàpp ne ab buur la fi fekk boo xam ne dañ koy tegal day sol ab crown ba noppi wëlbatiku toog ci ab trow muy ab chaise buur mu dikk bu dikkee danaan anakat mooy Muhammad ñu ne ko ma nga nële fam daan fanaan bu masaan taw day tawte sallallahu alayhi wa sallam yonent bi keroog fii laay tëjee ci laay bi comme que juróomi ni lañ ma mayoon ñu xam ne ak mbooloo mi ma amoon bi nga demee ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ci Madina état civil yor gouvernement am na bis boo xam ne dafa xëy amul dépasse xëy amul dépasse toog ci biir kër gi juróom-ñeenti soxna wër ko ñoom ñépp di ko laaj amul lum la amul lum joxe ba nga xam ne yëf yi jàpp na ko lool te la tax joxewul mooy dafa am lu ko dikkaloon way laaj yi dikk di laaj mu leen di jox di leen di jox ba jeexal tàkk Aboubacar daa di dikk radiyallahu anhu ne ana Muhammad sallallahu alayhi sallam ñu ne ko mi ngi ci biir waaye tey day kenn nanguta dugg mu ne bàyyi leen ko mu ñëw Omar it noonu la duggee Aboubacar mooy waajuru Aïcha Omar mooy waajuru sayyidatuna Hafsa radiyallahu anhu ajmain ñu dikk ci gàttal daa di laaj lan moo xew sallallahu alayhi wasallam sallam daan ne soxna yi de ñoo may laaj te tey damaa yorul lu ma leen jox mbir ma doy waar lool kenn ku nekk ci ñoom ñaar ñoo ñëwee wéet ak sa doom nar koo fitnaal muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di cay dugg daal leen di avertise ne leen yàlla dafa ma yónni ngir ma nekk koo xam ne damay baax ci sama xeet baax ci sama njaboot waaye yàlla yónniwu ma ngir ma nekk koo xam ne damay violent ci sama njaboot te mom mo waxone ne ki gën ci yéen moy ci ki gën ci ak njabotam te man ma len gën ci sama njabot kérok bi mu waxee loolu ba nopi ci la ayat alquran ba wàcc ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayuha annabi qul li azwajik in kuntunna turidna alxayata addunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما أيو ينتبه صلى الله عليه وسلم وخلص صغن يي بفكين نيوم أدنا لن بغ نال ننيو nga banne xal len jox len aduna moy soxna so yew nga wut alal jox ko ba da ngaa bëgg yàlla ak yonanteem te bëgg ëllëg nga am fay àllaaxira na la wax leen ne leen yàlla mi ngi leen di waajalal fay goo xam ne ñoom dong la koy dencal ëllëg yowmal xiyaam bi mu waxee loolu ku mu ko wax ba noppi ne lii ma la wax na yem suñu diggante dem wax ko keneen ñoom ñépp ñu àndandoo ci lu dul complot ne ko ixtar naa allaha wa rasulahu wa daar al axira sallallahu alayhi wa sallam kon kooku defaroon na waa këram defaroon na ak njabootam kon kuy roy toppal sayduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam comme ni nga xamee ne suñuy mag noonu lañ ñu yaree te bëggal ñuko ko man day bir na ma ne képp koo xam ne ci at tariqa tijaaniya wala nga nekk al muridiya te la nga xam ne la la sëb sëriñ digal nga sax ca ca nam ko bëggee ëllëg kenn mënu laa teree dugg àjjana bu fekkee ne benn kuréel ci Sénégal dong wala benn kuréel ci àdduna bi dong ñooy dugg àjjana kon yàlla àjjanaam juré ji lu mu koy doyee ku tax mu koy tabax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu di leen fàttali rek ni suba burdu bi neuf heures lay tàmbali insha allahu taala Euh, ni ñu ko baaxoo woon di commencé huit heures suba neuf heures lay tàmbali mooy nekk tëjte burdu bi kon na ngeen fexe ba neuf heures fekk leen fi incha allahu neuf heures pile la ñuy tàmbali ba fu mu soob yàlla ko defee euh, danañu def tout moyen balaa minuit ñu jóge fi onze heures rek mu jeex bu soob yàlla incha allah kon mbay doon na nga ñaan ñaan gi rek waaw xol bi moo fees ma kontaan ci waxtaan wi képp ku ko dégg rekk danga ci mën a jëriñu danga jëriñu it ci gàmmo kon wan nañu ne yonent bi sallallahu alayhi pour ñu xam ko fokk ñu def ay mbooloo di daje boroom xam-xam yi mel ni kii di ñu tuddal jikkoom ya di ñu tuddal ni mu doon dundee ci ay soxnaam ci biir société ci biir àddina bi ba tasaaroo ci àddina bi ba loola mag ñu baax ñi ko jàng teewewuñ ko defar ay niti yàlla ñu nekk ay alquran yuy dox ci kaw àddina bi kon nag loolu buñ ko bàyyee bàyyi nañ loo xamee ne li lu rëy la waaye nag yaakaar naa ne kenn du ko bàyyi kenn du ko bàyyi inchaa rabbi taazimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati bihis diyaadul minnati fahtariman wa azimi màggal gudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sunna daf ñuy ommat yóbbuñu àjjana kon nag na nga ormaal guddi gi yonent bi sallallahu wa sallama eh, juddu waaye nag nga tekk ci sunna leeralal nit ñi nii la yonent bi doon dundee ci biir société am yi nii lañ doon dundee ñi ko roy ci réewam Sénégal ak àddina bi yëpp loolu lañ koppi di ko dundee kon jërëjëf oustaz ñu lay sant bu baax jazakumullahu xayran. jërëjëf jërëjëf هنيئا لنا منه شفاعة في غد يونان ينال رضا كل عبد مواعد على خطا في ذنب ان او تعمد جرائرنا تما بجاي محمد اساس فعل ما بجاسل مبارجو وراك من السلم باطن وغرب فذرها والشرق لا يقربك الغرب بيسرب النور للنبوة لا يأبه تشارك في إدراكه ترف والقلب barakaatuhu yonen laqad azumat fi xalqi barakatu, lakat barat shamsu du'a mu'jizaatuhu baraayinu laa tanxadi way baatuhu fa ayaatu subun wa anmuluhu مجبرني على بلائق يا رحمن يا الله مزعني شكر ما أوليتني نعما جل سناؤك يا رحمن يا الله لا أحصين سنا عليك أنت كما ربي على نفسي قد أصنيت يا الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جيعة الدين أو في الدين يا الله صل على ساجد قبل الورى فعلا بسبب آتها من ربي يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها واجبرنها ربي يا الله ونسلي وسلمن في الأرواح ربي على الخلق صل وسلم في الأرواح ربي على روح الأول المصباح من صل وسلم في القلوب ربي على قلب رضا الحبيب صل وسلم في الجسد ربي على جسد الإرسال صل وسلم في الخبور ربي على قبر بشير الحبيب سيدنا حبيبنا محمد بدر الهدى الممجد بدر الهدى المؤثم اللهم يا من أزهر الجميل وستر القبيقة ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يأتك سترا ويا عظيم العفو ويا عسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين برحمتي ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الشفع ويا عظيم مني ويا مقل العشرات ويا مبتدئا بنعم قبل سقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي وغاية رغبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي وغاية رغبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك أن لا تسوي خلقتي ببلاء دنيا ولا بعذاب نار برك مكة برك مدينة برك فاس برك barka Tiwaawan barka Cheikh ak njabootam yu tëdd Fatiha